<laughs> yaa ngi yaa ngi a cos de te sama yaram daa tàng sëriñ sëriñu sëriñ sëriñ buy wax loo xamante ne naan euh, day direct sooy wax moom da koy wax lu direct politique politique politique mi benn leader laa ci am boo xamante ne ni tooguma ci média di ko wax maa yore ay ngembam te du laal suuf day jàng rek waaye du daanu maa la wax loolu ah xamoo ko na nañ dem rek de de de de xam nga. xam nga xam nga Ibrahima hmm. maanaam damaa doonul sëriñ boo xamante damay toog naan maay ñaanal diw xam nga loolu bari na bari na nga ma la koy wax. waaw dëgg dëggoo li ma wax dama la ne man damaa doonul sëriñ boo xam ne damay toog naan la man maay ñaanal diw man diw man maa koy ñaanal su ma ko doon wax su ma la wëñalee fii nii fii ba ngoon du du du dañ fiy tudd may may may jàpp ci ay tur. du daanu mukk du daanu mukk te day bett ñu bari damaa toogul fii nag naan diw maa koy ñaanal diw maa koy ñaanal jaru ko may ñaanal diw wala wala diw maa ngir lan ngir ne la mu siiw déedéet la ma séq yow dama koy séq moom séq naa koog moom séq naa koog ñi nga xamante ne ñoo ko yor yor ay ngembam kooku sampam a ngi fi kooku saa yu ma xëyee damay ñeesal sampam maa la wax loolu day jéng rek waaye du daanu ni ma mel ci politique bi naa noonu laa mel ci làmb ji